journaliste bii di pap Alé Niang nag di patron bu Dakar euh, Matin démb dañ koo tog loxo fu mu nekk nii sax mu ngi ci garde à vue bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne moom mooy awakam di euh, maître Ciré Clédor Ly mu ne nag ñu ngi koy toppee mbirum joxe xibaar euh, boo xam ne sax daa ñeel militaires yi te amu ca ndigal di wax itam ak di jëf daal ay mbir yoo xam ne mën na indi yëgu yëgu ci biir réew mi euh, wante itam euh, li ñuy woowee violation euh, du secret professionnel ba léegi sax buñ sukkandikoo ci awakam bi nga xam ne moom dafa jàpp ne kii di client am dañ koo nappe moom nee na nag soxlawul sax ñu nekk li nga xam ne moom mooy juriste pour daal xam ne lii ay mbir la yoo xam ne daal dañ koo dajale rek ngir kon mën daal buñ sukkandikoo ba léegi ci awakaam di maître Ciré Clédor li nee na lii sax ay mbir la yoo xam ne dañ koo dajale rek ngir kii ngir kii di Pape Alé Niang daal ñu xoqatal ko ba sax mun koo tere def li nga xam ne moom mooy liggéeyam ba léegi ci teg loxo boobu ñu teg loxo kii di Pape Alé Niang ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coordination des associations de presse di CAP amal nañ démb ab communiqué ngir nag euh, wane ci ne ñu ngay euh, soutenir kii di seen naataango bii di Pape Alé ñu cay xam ne ne itam waa SYNPICS di syndicat des professionnels de l'information et de la communication bu Sénégal jël nañu ab euh, avocat muy maître bamb Cissé ngir kon mu gën leen xamal daal euh, ana lan moo waral boobule arrestation ba ñoom it ñu xam ana naka la ñuy doxalee. comme ni ko ay naataangoom yu bëri defee itam di ay euh, personnalité politique ki nga xam ne moom mooy Aminata Touré moom it àdduna jëmale ci arrestation bu Pape Alé boobu moom nag nee na euh, Sénégal daal démocratie am dépassé na foo xam ne dañuy jàpp journaliste boo xam ne liggéeyam lay def moom nag mu ngay sàkku kon ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy euh, kii di euh, Pape Alé ki sax loo xam ne amul xaar xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ab jiyee joo xam ne dafa am fële ca Tanzanie foofu nag ab avion moo fa daanu ci fa ñuy wax lac Victoria kon ci biir ndox ma euh, yeboon ay nit lu toll nag ci dix-neuf personnes ñàkk ci seen bakkan avion ba nag kon mu nga waroon wàcc fa ñuy wax bu Bukoka nekk ci nord-est bu boobule dëkk avion ba mu nga jege woon ci capitale économique ba di Dar es Salaam bu ñu sukkandikoo nag uh, ci responsable yi nga xam ne ñoo joxe bi lay xibaar ñu ne lu toll ci vingt six personnes sax ca quarante trois personnes ya nekkoon ca avion ba jot nañ leen sauvé. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy ubbiteek li nga xam ne moom mooy COP 27 di conférence de l'ONU sur le climat ñu amal ko démb fële ca charme el Sheikh nekk ca Égypte njiitu réew ya fay daje nag war a waxtaan ñu ne ñu xool nag naka la ñuy def ngir gën a mun a aar li nga xam ne moom mooy alam bi ñu ne bi la yoon nag la ñuy gën a waxtaanee moom mooy anna naka la ñuy dajalee ay koppar ngir financer xeex bi ñuy xeex lii di catastrophe climatique yi. xibaaru sport lañ koy jeexalee démb nag euh, sita moom moo daan kii di Papa Sow fële ca arène nationale ñoom nag euh, bëre nañ sax lu toll fukki minutes yoo xam ne kon euh, ndam demul ndam dikkul songoowuñu sax ce gannaaw ga nag euh, ñu am pause ba ñu dellusee ca pose ba nag ca la ñu songoo ki nga xam ne moom mooy Siteu nag euh, jël ndam la kon ci kaw Papa Sow gannaaw bi nga xamee sax moom Siteu xaw tuuti mu daanu def kat appui wante nag mu jéewul def yooyu dafa taxawaat ci mujjantal ga daan Papa sax ci ab boo xam ne euh, prise bu rafet la bu sukkandikoo nag ci ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu làmb nee nañ ndam loolu day sit day ubbil Siteu kon mu dugg li nga xam ne moom mooy cour de grands Ligue de champions nag euh, li nga xam ne moom mooy seizième de finale yi euh, def nañ li nga xam ne moom mooy tirage au sort yi fi mu nekk nii nag kon xam nañ équipe euh, bu nekk ana kan ngay dajeel nii lay tëddee Leipzig dina dajeek Manchester City Club Brugge dina dajeeg Benfica Liverpool dajeeg Real Madrid AC Milan dajeeg Tottenham Francfort dajeeg Naples Borussia Dortmund dajeeg Chelsea Inter dajeeg Porto. PSG dajeek Bayern Munich bu Sadio Mané dinañ leen lu tey ci xibaar rafet seen teewlu dinañ jox daje ëllëg jaa ngeen jëf